man maa ngi tudd Mamadou Niang man may coordinateur euh, du mouvement des élèves étudiants républicains national. sëñ bi nan nga mëna expliquer mouvement bi nga xamné mo mooy lëkkale étudiants ak élèves républicains lan mooy seen euh, taxaw tay ci bis bu melni tay ngi non doon seet ki nga xam ne mel na mooy Sapa Sapa. avant tout d'abord dama damay nuyu ñëpp ñu fi teew tey euh, ma xamal leen ni ñun ñu ngi fi depuis maintenant le samedi passé. mooy huit bi passé lañ ñëw fii ci Touba pour def ay action sociale ci daara yi jàppale leen jox leen ay nat ay sa ay sajaade ay euh, ay satala ak ay yére ak détergent ak ay saabu loolu moo ñu indi woon fii depuis le huit mooy euh, avec euh, membre yi yu ñu fekk fii mooy ñoom maire départemental bi ñoom Gouda ñoom Cheikh Ndiaye ngi nii donc ñom ñoo ñu téwal fi ci département bi mais mouvement bi comme ni nga ko waxé comme ni nga ko waxé rek c'est un mouvement bu bu englobé élèves yi ak étudiants yi mais ñu ñu andal ak Macky Sall yëpp ci ci territoire national bi moy ci fépp Sénégal donc école yi ak université yi yëpp donc c'est un mouvement moy mouvement bu englobé élèves yoyu yëpp ñu ànd ak Macky Sall yëpp donc euh, moy maire national waaw ñu gis tey ngeen euh, ñëw fii ci nga xam ne mooy Touba. di ko amal ay yëngu-yëngu. Mhm. ndax mën nañu ràññee yan secteur d'activité la mouvement bi di gën di dugal loxo. donc mouvement bi mouvement politique la affilié à la l'APR euh, donc ñun suñu mission mooy accompagner président de la République ci liggéey bu muy def ci réew mi donc euh, ku xam étudiant xam ne ni nit étudiants yi dañoo xarañ ci wàllum du bëri du mel ni communication mel ni tamit adhésion de masse lolu motax ñun tay suñu taxaway euh, c'est juste que pour président Macky Sall mun faluwaat lolu moy suñu taxaway lolu motax dekk yu melni Touba département de Mbacké particulièrement dekk yooyu yëpp dañ ko wara investir téw téwal ko fa pour que mo mun en 2019 gagner facilement parce que ñun xam nañ ni ni fii à Touba inshallah allah mën na gagner mais il faut ñu liggéey bu baax il faut tamit ñu nek aux côtés des populations mën na leen jappalé pour ñu xamné ni ñun ñun tamit ay ndaw Macky Sall lañ mais dañ leen di accompagner ci seen action surtout social socialement. ñu gis ne Touba nek ci département bu nga xamné mo upp ay yëngu-yëngu ci biir affaire ñu ngi nek ay ndaw yu nga xamné da ngeen di ñu jox pour yok li nga xamné moy yëngu-yëngu yi fi parti bi am. Mhm. ndax par exemple tal seen loxo responsable yi fi pour que lepp jarat yoon. waaw xam nga ñun buñ fi ñëwee ànduñu particulièrement ak kenn donc dem nañ ci responsable yi yëpp motax ma ngi leen di nuyu ñom ñëpp ñom ñëpp donc nous nañ dalal en plus ñu ngi def mission bi ni mu waré. Lool motax ba affaire bi Nous yomb ci ñun. bu ñu fi harmonie mëna man espérer 2019 dinañ fi door opposition bi Inshallah, ci victoire bu rafet lool et en plus ma ngi ci di wax information nga c'est un faux débat.

ñu gis ne ni ñu gis mouvement de masse boobu envers le le parrainage du candidat Macky Sall loolu moo tax ñoom tey seen ragal moo tax ñu monter ay vidéo dem ba ci monter ay vidéo di ci def commentaire suuf xaw ma ndax déglu ngeen vidéo bi di di di di jéem a euh, yàq xel nit ñi loolu amul loolu amul le président de la république Macky Sall def na fi tay li ken li ken li kenn ci chef d'état yu fi jaar yep ken defuko ko autoroute Ila Touba bi mu ngi ni de opposition bi mo donné c'est un éléphant blanc tay autoroute bi presque pare na octobre bi déjà ci màggal octobre bu ñuy dem ni màggal boobu noonu euh, oto yi dinañ fa jaar di nga daw dakaar ba Touba ci sans difficulté di nga di nga def temps record et en tamit dina wàññi jafe-jafe yu bëri donc loolu noonu opposition bi moo toogoon fii il y deux ans trois ans ñu ne ay éléphant blanc la pour nax population bii la donc tey gis nañ ci ndi ci ci ci ci ci ci ñaanu Serigne Touba ak liggéeyam fii ci ville bi yalla def na ni Macky Sall concrétiser projet donc euh, ñun ñep ñu ngi koy rafetlu té ñu xamal population de Touba population Touba nous lu ñuy wax achat de conscience déjà 50 000, est-ce que 50 000 mën na jënd quartier jënd quartier donc nous avons li ñuy information yu ñuy inventé di wax population bi mo sentir né ni président ligéyal na len à travers tey des plans de modernisation de la ville de Touba ñepp xam nañ né ni tay le président de la République Macky Sall dafa dafa def Touba ci xolam lolu motax tay tey opposition bi sen manque d'inventivité et sen manque de programme motax invention rek lañ nek inventé information yu amul paré diko diko diko diko di de jëmale ci ñun lolu nak amul lolu amul da ngeen ko wara xam pour ngeen mën yeen tamit presse bi ngeen démentir yéen saa xam ngeen rationnellement cinquante mille mun na jënd quartier ci Touba xanaa kenn ku nekk cent franc nga koy jox wala dix franc loolu amul.